ci leneen ma si li nga xam ne que moo di euh, Dof Nday dugg turam dëgg di ki nga xam ne que moo di Alassane Diallo moom itam euh, mujj nañ ko daal di jàpp foofu si diwaanu Ngexax par les gendarmes mu jàpp leen itam euh, ginnaaw ba nga ko daal di jàppee nag mujj nañ ko daal di transféré foofu si diwaanu Kaolack et que dinañ ko daal di déféré ni ki tey jii ce mardi le rappeur Dof Nday mi ngi si benn situation juridique bu xaw a compliqué jàpp ni itam fu ñu koy daal di toppee jamono ji mooy que détention illégale d'armes et tentative de meurtre jàpp leen itam ginnaaw rek rek euh, ba ki euh, mu jamoon def euh, bennuk certificat médical de 30 jours bi nga xam ni itam mënu ko liguey un témoin a également été défendu par les enquêteurs Chargé yi nga Topé contre Dof Ndeye euh, mun na ko euh, reconnaître que est coupable par rapport à wàllu wunu mel ni la détention illégale d'armes et la tentative de meurtre sont des infractions lourdes en droit sénégalais Nyalinka Topé, ñu koy toppee nag gis na lool autorisation waaye itam bëgg Le dossier Dof Ndeye jamono ji nag mi si loxo et que enquête bu approfondie dañ ko si daal tijji allant dans sans daal déterminer exactement les

parce que tout simplement ce sont pas des références mm. et aussi nous ñu ay exemple déjà man tour rappeur au fait c'est la première fois que que je fais une analyse <laughs> Je me si si au fait mm, parce que déjà le mot rappeur ça le mot rappeur sax waruñu ko ko tek parce que rappeur en dehors de la musique mm. bi def tu lances des messages da ngay des et au Sénégal il y a des personnalités qui sont dans le domaine musical mais ils sont toujours dans l'éveil de conscience. conscience mais quelqu'un qui se permet filmer leen ma. Hmm. nga yor arme de nit suñu autorité yi su ñu bàyyi woon lii nii jàll rek hmm. man ma désisté moo tax sànq ma ne la nos dirigeants dañu am autorité si ginnaaw nag s'il l'avait fait peut-être dinañ ko téye benn deux trois jours mais après dañu koy bàyyi hmm. y a des choses yi nga xamante ne waratuñ ko gis ci biir réew mi on est dans un état plus précisément dans un état de droit et il y a des critères qui accompagnent la bonne gouvernance sur tous les plans. Politique, économique, social, culturel, bonne gouvernance mon que Et nous, si tant que nous sommes la nek. Qu'on revienne à une certaine réalité. vidéo bi ben si hmm. normalement sur certaines plateformes on doit censurer. Hmm. parce que li xare waru ko les mots qu'il emploie waru ko gis tolon nañu ci contexte bo xamantene mais xolal sax ay xalé yu naw quand tu les entends parler da ngay xam que li dañ nek ci crise de valeur bo xamantene violence mom moko teunk hmm. légui nak la politique auparavant avait fait tellement de ravages dans ce pays là mo indi problème yépp mais l'enquête est en cours léegi il y a des charges yo xamantene dañ ko jël c'est-à-dire détention d'armes amul droit té parce qu'il n'a pas la légalité et amul les papiers et sur le plan juridique lolu dafa am ay dan yo xamantene dañ koy jël tek ko sa kaw ñu tentative de meurtre ñi ngi là je vais pas euh, trop dugg mais son intention, c'est clair, il l'a fait, c'était de blesser cette personne-là. Mais est-ce qu'il est lucide vraiment Est-ce que ce sera une assistance psychologique, justement, Mamour Je sais ce que Fallou, que ñi fi nekkoon doon ko couvrir ñoom nekkatuñ fi c'est tout simplement ça gis nga fàllu hmm. kii dara dalu ko hmm. lu mu def moom moo ko tay léegi nag am na lu fait. Qui ku doon filmer d'après les dernières informations gis naa ne que moom tamit suñ ko ñi parce que sur le plan juridique c'est lan non assistance à une personne en danger mm. droit bi tout ce que je suis en train de dire li mm. droit bi moom wax mm. dañu dans un état on est dans un état de droit il y a la justice il y a des règles non non il ne doit pas y avoir de discrimination ni de favoritisme au moment où nous nous ñuy que cette euh, justice non non non on n'est plus dans un état on n'est plus euh, dans un état de passe droit on est dans un hmm. hmm. j'en ai parlé Avant ah, qu'on wax a wax wax ba après voilà tuñu dans un état de passe droit on est dans un état de droit hmm. légui nak dans un état de droit on a l'habitude de nous dire que cette justice doit avoir une certaine liberté, une certaine indépendance, de donner les bonnes décisions et que si la justice doit être rendue, donc rendre au nom du peuple hmm. tout en disant que nga le droit. Alors nous y restons toujours par rapport à ces scènes de violence. Faut si diwaanu comité de gouvernance 180 personnes teg na loxo dont 48 mineurs exactement après la descente de Jean Baptiste Tine le ministre euh, de l'intérieur exactement alors euh, enquête bu gaaw bu nu mel te vite fait ñu euh, tech loxo ñi nga xam ne itam ñoo nekk si ginnaaw de li nga xam nekk moo di trouble ba jàng nga concrètement efficacité pragmatisme mm. quand il y a une affaire sérieuse on se déploie indi les méthodes def les recherches situer les responsabilités. Hmm. Sénégal dafa nek dëkk bo xamantene dañu am culture dañu am valeur Réro mun na réro réeroo mun na hmm. mais pas mu yexi si si stade bi ni fallu. surtout nak jour tabaski. Hmm. jour bi nga xamantene nit yi dañu wara a ak lan mo fi jar ñuy di ba muy am moor. dafa ëpp. ëpp na xam nga ne que le ministre su demee ba def le déplacement woo la gendarmerie moo lay wan ne que la situation est sérieuse léegi nag je pense que on ne va pas trop de rentrer ci historique bi. Mm. mais c'est des conflits entre deux parties. ba moo taxoon sax une partie euh, du frontière de la Guinée-Bissau ñu restreindre ko pour dugg ak beeg génn bi bëri ba ñu régler la situation léegi nag waxtaan am na on est dans les concertations mm. mais ay kilifa ñoom ñoo fa nekk na kilifa yi toog ñu waxtaanee ko essayer de trouver des solutions léegi nag concernant les enquêtes qui se poursuivent ki nga xamante ne moom moo fa ñàkk bakkanam bi ñu defee enquêtes yi on a découvert arme de guerre kalash kalash moom lañ wax de ak yeneen arme yoo xamante ne jot nañ ko saisir y a eu des arrestations. comment ñooñu mën a jot arme de guerre yu nu mel dañ leen rax loolu lépp enquête bi moo ko. moo ko il y a il y a l'enquête qui se poursuit. Hmm. mais d'après les derniers développements bi la tu viens de m'informer qu'il y a entre 180 et mm. deux cents arrestations. Mm. ki nga xamantene mom lañu fat, ñu xam nañu lan moko fat. Lool nak moy mooy que le professionnalisme ak actes yi nga xamantene ne vraiment ni euh, les personnalités qui sont au service du peuple nous ngi koy mené. ñu koy le déploiement que les FDS ont fait la gendarmerie c'est à saluer jour fête. Mm ils ont des familles. le ministre bu descendre sur ministre bi dem watch l'ol sank mom la la don wax. Hmm. lu fi xew nga gis ministre là dem. El Malick Ndiaye moom mën na mbedd bi. barki dem camp pénal yi fa coow Ousmane Diagne. les détenus quand ils ont voulu être dans la concertation biñu tuddé le nom du ministre dafa déplacé wu ñëw ci biir. ñu waxtané ko Li lañu ñu soxla ci réew. Sénégal il faut ko c'est pas compliqué hmm. refaire ce pays là ça commence à se soucier des problèmes de la société hmm. tu es le débat tu tegaat un tank, tu réew mi kanam mais on espère encore une fois à ce que nous am apaisement tranquillité ñu nekkaat ci jàmm vraiment éviter wat yi ni di am ci biir réew mi sëñ quand l'affaire générale Kandji directement <laughs>